وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم عاشوراء يومي يسوق إبليس لغيري أبدا من في البحور بجهادي عبدا ولا العين هاربا وباكيا إلى سواي لجهادي شاكيا مقته ملأه بعد الفرار wa jarrahu ila biraadihi iqtiraar allamani illahu taala kayda wali siwaaya daxahu wa mayda ila siwaaya dabba kulla faasidi man saanani an kulli qaalin xaasidi shakartu rabbiya ala kawni shuhur liya jamiiha wa fuztu bittuhur waajahani bilbishri kullu layli maa nahaarihi wa taaba nayli waajaani bilxayri kullu yawmi wa kullu shahrin wa aquudu qawmi aquudu man tabihani lillahi wa li rasulihi li wajhi llahi aataani adikra alxakima man jahal fulki mutimma alxazawaati fan jahal yaquudu lil ajra bila misaani man qaada lil azama fi misaani waajaani taayidu zil hayzuumi waqta jihaadiya ma alluzumi madattu bilkitaabi walmaahi yadi lillahi wallahu hababil afyadi yashkuru rabbi dahra shukra man sharib min kasi dihaaqi abdun muqtarib ashkuruhu bi faydihi walfaydu fiihi li iblis algawi rawdu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillaahi rahmaani rahiim <clears throat> sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar yaag mbokk yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci jataay bi di sant yàlla bu baax di la sant ci liggéeylu gi nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom nga yëkkati te mu jëm ci mbindum sëriñ bi di la wax ne li ñu jot dajale fii ci ay téere muy juróom-benn diwaan yi li ci war lépp ci saytu ko ci topp ko ci ña ko doon bind def nañ ko ci anam goo xam ne anam gu ñu sonne la juróom-benn diwaan yi téeméeri xasida ak juróom-benn fukk ñoo ci nekk téeméeri xasida ak juróom-benn fukk mu mel ni li ëpp ci xasida yi nga xam ne moom mooy yi ñuy mool nii te mu tasaaroo mi ngi ci juróom-benn diwaan yi mu des ndax lépp diwaan yëpp bu ñu ko xoolee mu ngi nekk juróom-ñeent fukki diwaan ak juróom ñu fàttalee ne sëriñ Alaaji Mbàkke mu suñu sa ak sëriñ Jiili Mbàkke Abdou Xaadir mu sëñ Cheikh May ñoo seqoon liggéey bi sëriñ Alaaji di ko bind ci mbindum wolof mi sëriñ Jiili di ko bind ci mbindum mi ci des muy mbindum ordinateur mi loolu nag bu dajee day mel ni sëriñ bi ci itte ittewoo xasidaam ak ittewoo liggéeyal sëriñ bi moom moo tax mu tànnoon ñu mag suñu Cheikh Fano mi ngir ñu taxaw ci mu tasaaroo def na ci it alalam ju bari ngir bëgg rek murit yëpp jariñu ci kon nag sëriñ bi dafa mel ni dañoo tàmbali ci door rek ndax lu tollook juróom fukki diwaan ak juróom bu fekkee juróom benn rek lañ ci defagun des na lu bari waaye nag incha allah fas nañ yéene ni nga ko bëggee dana sottee noonu ndax xam nañ ne njariñul yoon wépp la njariñul murit yëpp la kon nag xam naa ginnaaw jotaay bi day xat ñu ko tënk incha allah xam ne li ci des daal incha allah ñu ngi ci te lépp dana dana sotti bu soobee yàlla jërëjëf. sëñ bi mooy yeesal ay cantam rek <coughs> sant sant suñu bi. ci sama lépp bi tey ndax li ma sama lépp tey ëllëg moom dong laa ci wut moom dong laa ci mënta ñàkk di ko sant nag baax a baax xel mën a yem ak cant xol man faa ak foofee laa koy egg maa ngi leen di seereel sama cant bu rëy la ca dolliku nag ni ma ko waxee rek suñu diggante ak sëriñ bi sama doom yu baax yii sama doom yu baax yii xam naa ne ci pàccu sëriñ bi ndax xam naa ne dañoo bokk rek yitte jure ji nga xam ne def na ko ci bindi bi. li dégg di dégg mati rek di dégg di dégg di dégg ba dégg ñaar ñooñu nga xam ne mooy doomi mooy sëñ jiir moom sëñ Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha Absa ci seen i taxawaay ak seen i may dégg ba suñu borom dogal nag ma am lu ma ci xam. sëñ Fallou mii moom amoon naa ndigal ci moom jaar na fi man ci ndigal sëñ Sall. sëñ Xalil moom mii moom amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. moom ñooñu rek ñoo ko andi itam ñoo ko oh. bi ma gisee gisee loolu. bi ma gisee loolu. mu yëg ko mu sori ci man lool. ma yëg ko mu sori ci man lool. wóor na ma ne. mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ liggéeyal ko si xasida yi moo jiitu. liggéeyal ko xasida yi moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi ma xamee loolu. sama doom jee di seet di seet di seet suñu Cheikh sama doom jee di sëñ Cheikh Fatma moom sëñ Moussa Bachirou. yàlla defal nu ci tawféex ci moom. la yàlla defal nu tawféex ci moom. defal nu ci njub. defal nu ci xam-xam. yàlla xeer ko itam. yàlla xeer ko itam. ci liggéey boobu. ci liggéey boobu. liggéey liggéey liggéey liggéeyu sëriñ bi moo jiitu ci liggéey yëpp. ndax liggéeyu sëriñ bi moo jiitu ci liggéey yëpp. liggéey boobu mu doon mu defal boppam. liggéey boobu mu defal boppam. digg bi. diggante ma yonent bi. digg ma boppam. diggante boppam. ma daal santaan nag. ma daal santaan nag. sëñ Cheikh moom yi. sëñ Cheikh moom yi. nga xam ne. daal di sama xel dafa dal jëm ci li ma yéene. sama xel dafa di dal jëm ci li ma yéene. muy lu bokk sama doom yu baax yi bind. muy lu sama doom yu baax yi bind. bind ko seen loxo yi. ñu bind ko ci seen loxo yi. am fas yéene am taxawaay mool ko. waaw lu ci yàlla dogal rek. lu yàlla dogal rek incha allah lépp laa bëgg a mën. loolu dama li ma li ma ko waxee rek eh, sant bu baax. loolu nag ni ma ko waxee rek sant bu baax. tawfeex ji ma am ci sëriñ bi. tawfeex ji ma am ci sëriñ bi waaw Mbacke tawfeex ji de rëy na lool waaw. sama dundu àdduna. ba tax ba tax na sama dundu àdduna. sama dundu alaaxira sama dundu alaaxira. moom rek laa ci munti ñàkk moom rek laa ci munti ñàkk. adduna moom noppi woon naa ci bu yàgg. adduna moom noppi woon naa ci bu yàgg. bi ma daataa agsi foofu bi ma daataa agsi foofu. loolu nag tax. loolu nag tax. tawféex ji ma am ci sama doom yii. tawféex ji ma am ci sama doom yii. ma bëgg ma bëgg leen a fekki. ma bëgg leen fekki. bëgg lu ñu bind rek. bëgg lu ñu bind rek. fu seen fu fuñ ca àgg ak yitte rek. fuñ ca àgg ak yitte rek. maandu ko ñoom maandu ko ñoom lu ñu bind rek. lu ñu bind maa ngi noyyi. feeg maa ngi noyyi. danaa mool lépp. danaa mool lépp. ndax. yàgg lool. liggéey bi. ndax liggéey bi liggéey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 la ca ko la ca dolliku. mooy muy muy muy jataay bii. mooy jataay bii. bi loolu amee. bi loolu amee. damaa daal di xemmem jataay bi. damaa daal bëgg ñoom ñooñi. bëgg ñoom ñooñi. ñu teew si ñu teew si ak képp ku yeyoo ci yeyoo jataay bi. ak képp ku yeyoo jataay bi. nii mu demee nii rek. nii mu demee nii rek. noonu laa ko bëggee woon. noonu nii laa ko bëggee woon. muy jataay boo xam ne. muy jataay boo xam ne. dama leen di dama sama sama sama sama ndax lu ma ci def rek ci teraanga rek néew na lool ci ni ma ko bëggee. waaye loolu dong la waaye loolu dong la ci. bokk jotaay. ma sant leen. ma sant leen. kañ leen kañ leen. di seereel sama borom. seereel sama borom. di seereel sëriñ bi. di seereel sëriñ bi. ni seen liggéey boobu ni seen liggéey boobu yi ñu sëngu. fas yéene caa ànd fas yéene caa ànd ak ñoom. feeg maa ngi fas yéene caa ànd ak ñoom feeg maa ngi nooy na yàgg lool. moom moom laa leen doon seeral ñoom. loolu moom laa leen di laa leen doon seeral ñoom. bokk seeral bokk yu baax yëpp seeral bokk yu baax yëpp. nga xam ne am na yeyoo teew nga xam ne am nañ yeyoo teew ci jotaay bi. loolu rek la loolu rek la. ndax yàgg fi lool. da ngeen da ngeen da ngeen da na ngeen seere na daal. ni ma ko waxee woon rek. ni ma ko sëñ bi rek laa mënta ñàkk. sëñ tey ëllëg. waaye da ngeen seere ne itam nag. da ngeen seere itam nag. yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yë yitte ji yàlla teg ci sama bopp. yenn ko yóbbu ko fa fa fa ko sëriñ bi te bu ma sañoon yenn ko yóbbu ko fa ko sëriñ bi bëggee. waaye yitte ji nag. waaye nag yitte ji nag. lii laa ci jiital. lii laa ci jiital. fas yéene cee liggéey rek fas liggéey rek nag. lu ma ci mën a boole boole. lu ma ci a boole boole. loolu rek laa leen di seere. loolu rek laa leen di seere jërëjëf maa ngi bu baax jëmmi téere yooyu nag. jëmmi téere yooyu nag. damaa yaakaar ne. damaa yaakaar ne. buñ ci nekkee. buñ ci nekkee. dana mas a bari lool. dana mas a bari lool. loolu nag moo tax. loolu nag tax. ñu ko kër boppam. waaw ñu wutal ko kër boppam. xajatu ko. déedéet foofu di dara xajatu ko. daaru mi naan yëpp tubaarkalla. waaw waaye dama bëgg bii moom ñu dugg kër boppam boo xam ne. bindum hmm. sëriñ bi dong moo ciy nekk. kër boppam boo fay nekk.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 lu téere yi bari dañ ko ci fàggu ba nga xam ne. lu téere yi bari dañ ko ci fàggu ba nga xam ne. lu am donte ay ab angaar la itam. donte ab angaar la itam dana fa xamee ko noonu rek moom mii dee naa ko moom sëñ aatu bi. kër googu ne kër googu. moom mii sëñ aatu moom moom ñoo koy liggéey. mënoon naa maa wax Cheikh Bass ak sëñ Ahmadou Badé bi mais ñu seet. ñi kuñ koy liggéeyloo. kuñ koy liggéeyloo. ca barab ba. ca barab ba ci université ba. ñi ci am yéene bari na lool. ñi ci na lool. waaye damaa xam ne lii moom. moom maa koy liggéeyal sama bopp. moom maa koy liggéeyal sama bopp. sama waa ji nag sëñ sama waa ji di sëñ àdduna nag moom laa ciy àndal. ndax tawféex ji ñu am ñoom ci xaside yi. ñoom seen mbir yëpp. xaside yi rek. ñu ci boole rek dañ ko caa boole. loolu nag moo seen tawféex ju ndax xasida yi mooy lépp kon nag noonu rek nañ daal tàmbali li ko tàmbali li ko tàmbalee nee sëñ Bas na daal di ànd ak sëñ Aatu ñu daal di seet fu ñu koy tàmbalee na seet bu baax ndax la ko tàmbalee ci téeméeri million ba milliard man ñaata nee na moom mën nañu téeméeri million ba milliard. caabi laa ko yore bu ko sëñ bëggee rek caabi la ko yore. te as gor su waxee ci digg penc ci digg penc. waaw ma dugal boppam. waaw téeméer ba milliard. bu àndul ak benn coono. kon nee na nga ñaan rek lool ba egg ba ba li mu bëgg lépp egg incha allah lool